mais les habitants de Touba c'est des élus c'est des saints c'est des bienheureux Touba est un centre sacré où Serigne Touba Dengine, n'est Touba am ab sa ci Touba fa Jema analisis analyser melom ba jëm ko def leneen loolu coobare sunu borom la ku dëkk touba mucc nga te foofu laa leen di yeggalee ni leen dëkk si leen touba fexe leen wut kër touba pàkk yaa nga fa du jaay kenn du jaay dara tu te pay même pas des frais de bornage te ku laaj ñu jox la te néegum ñax sax boo ko bëggee ko ci sa terrain mu doon sa kër nee mom serigne bi pëstéef de fi maye keur way du ñak ñàkk mënu la xëñ keur touba ndax mbarum ngeer boko defon ci pak buñ la jox ya mom keur ga waa ji ñëw leen wut ci touba ay keur avant qu'il ne soit trop tard dedet du trop tard ndax actuellement le territoire de Touba est en train d'être immatriculé au nom de Serigne Touba. Et le rayon d'alors, que fut celui de Touba, a été prolongé dans, dans tous les sens, de 2 km au-delà.